lépp ngi tolloo waaw waaw waaw waaw waaw lépp ngi ah. tolloo waaw hmm. waaw. lépp ngi tolloo day mel ni turu Sonko bi saa boo ko waxee réseau bi day kii. <laughs> xam naa booy bu ñu woy Sonko naa la boobu noonu. waaw dafa mel ni boobu lañu. Sonko Sonko Sonko namoon naa la mooy boobu noonu. li si si. Sonko nga saaga loolu da bu ñu ko woyee moom dañu lay non nag non nañ génn ci yooyu nag vraiment campagne bi dañ ko bëgg ma doon campagne bu civilisée. xam nga lan la may fàttali campagne d'idées yi xam nga. joxe la la lan la may fàttali. mooy temps yee gàmm bi di metti dëgg dëgg dëgg dëgg. Hmm. te yaay jaame terrorisé la woon fàtte nga. soo ñëwee di wax yaay jaam ñu ne bu tudd turam bu tudd tur bi. waaw ah, ko dee dégg bu ko doo tudd. waaw ah, doo ko dee dégg doo ko dee dégg de bul wax turu jaame. ah fii nag bu nekk turu Sonko gën a gën a doo ko dee dégg ah. ah mu ne. <laughs> yow nee na ba pare nga dellu sa place. <laughs> loolu tey li ngay wax ba ma jóg fii nii nii nii nii ah boo ko waxaatee ma jóge fi de bëgg ma dégg loolu. fii de ku ne bëgg na fee toog fii. <laughs> tey maa ko àppoo. kon ñu nag te xale yi lañ gis fii. ah yow waxuma la ko fi woon bis. waaw mais dama fi dama yàkkaaroon ne da ngay kii. da ngay da ngay ah, toog noonu rek fii di jàmm. Pape Badou mu ngi lay nuyu. Pape Badou. waaw mu ngi lay nuyu ah waaw waaw sunu xaritu démb. waaw léegi man damay def revue de presse ah, man maa war def revue de titre yaa ngi ci ñaata noonu waaw mille cent soixante dix bu ñu deful cinq mille Sonko ah, du ma jóg waaw non non fii mu ne nii kay xoolal dix mille la la laal non non wax ma dix mille ah, vues bi de commentaire bu ngeen deful Sonko tey du ma def revue de ah d'accord loolu laa ko jaay bu fekkee jaral na ko ngeen jënd bu fekkee jaral na ko ngeen bàyyi pour ñu def Sonko bind Sonko ok ah Mais monsieur le commandant, vous allez faire du travail, hein Faut pas yi de mu ngi takkar naa te nag xayma lu ci gën a neex Bayna Gaye maa ngi leen nuyu xam na la def. Bayna Gaye lii daal coom dama la ko woon a envoyé rek xam nettali moom balaa muy neex dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. daawal ànd ak xam nga bay naa la dëkk euh, mairie mère moo Sacré Cœur. waaw coom ci groupe bi ma ma ma expliqué la carrément dana demee comme ça su ma koy wax. xale yi mën a xam exactement lan lan moo xew dañu wax ne waa ji nee na hmm. bu kenn tudd tom jëlal loolu maa la ko may wanaale ma ko ci écran bi waa diaspora yi maa ngi leen nuyu bu defee ngeen mën a seetaan bu fekkee ni ngeen ko naa defee moom tam gars yi dinañ yëg ne bete ay golo ah, ah. Hmm, hmm. waa gaaw leen bind ah. leen waa lii lan la da ko dem samp bay naa moo def lii waaw lii na def mère mère mère moo Sacré Cœur naa Gueye moo def lii xale bi dëgër bopp la moom tamit ah lii la def lii la def dëggal na bopp de coom wan ko kii yi. moo ngi noonu kay ne fàng daan. waaw lii la. waa lii fa la. kii saxe kër la. <laughs> bay moo def lii. bay naa moo def lii. ah bay yow loo jublu ci lii. ah daf koo def ba pare bind ci ma lii lim bind. waaw dafa bind ne ici c'est baobab Sonko yee bi ngay bañ a dégg Sonko yee bi rek ngay dégg. Euh. sama revue d'étude bi fu mu toll bu ko defee ma jóg dama ko doon jaay de. waaw waaw waaw waaw dëcc. mu ne mu ne lan. Euh, dëcc. ah tonton dëcc. waaw ah. ah ñu koy nuyu moom suba la ah, doon laajte temps yëpp day ndekete yëpp. Hmm. ah ma doon feeñ na. léegi moom ànd. ah kii. sàmm kàddu yi moom. ànd sàmm kàddu yi fu mu nekk ma nga fa ba léegi. moom position 3 la fa ne woon de. ànd sàmm suñu saaga yi kañ parce que man ña fa nekk ñëpp mën a saaga yow seetlu nga loolu pourtant saaga yi bàttali mi jaar saaga woon c'est <laughs> ko a waxee ba du ma ko junj ko na ko saaga ne ma ko waxati mat. ah waaw. <laughs> mat na wala matagul war na cee jug nag. non Sonko yi kay muy waaw vraiment y kàddu yooyu moom c'est pas. ah déedéet kaay ma wax nag lépp nag. bokkul ci responsabilité daal. Mm. loolu moom ak ku mënti doon noonu war nañ ci mën a dimbali moom. Mm. saaga surtout xeet yooyu ñu dina bàyyi xel caméra yi dar la. waaw waaw. Ah, nga yëkkati lu mel noonu. di saaga amul lu ko mën a justifier nag. ah am na nag de. lan. ah déggoo kii parfois ki mu leen tuddee Salma. Ah. xat xol ah, xat xol ci leader. waaw mooy yow ngay responsable waaw derrière ay militants yu la gëm yaakaar la xalaat ni am nga vision luy soppi seen dund mm. saaga da cee warul bokk ah bàyyi Saliou amul dara la ko mën a justifier du sonk sonk du leneen leneen lu ko mën a justifier Sonko Sonko il faut être moom mosuma ko gis mu saaga euh, voilà faire des du saaga te Azoura ah. sax mu ngi laaj combat am digganteem ak Barthélémy Dias fi mu nekk ku ne am nga koo jël eh. ku nekk ak sa pointure. foofu lañ mujjee. Mhm, naaj na ko démb naaj ne moom la bëggoon mu def ak moom kii. ah après nee na ko ñëwal Kaolack bu ñëwee Kaolack la nga def nga defaat ko foofu man ne ko buy dem damay ànd ak moom de man Barth buy dem Kaolack damay ànd ak moom walla ah buñ ko naree jàppee ni campagne bi moom baa du ah ministre de l' intérieur boobaa na am liggéey. campagne bi dañu koy réglé yow wax ji wax ji campagne bi ñëpp a réglé. li hmm. sëriñ bi naan réglé yin. Hmm. Pape Ousmane sa xale bi foo nga ko réglé yin. <laughs> kër rek <laughs> xam di ngeen réglé waaye dina jub de di ngeen dem di ngeen voté lii soxla mooy yi tàmbalee feeñagum nii ay woo naa la ci débat public wayu yi wa yooyu mooy ñu waxtaane fiscalité ñu waxtaane dette bi ñu waxtaane masse salariale bi ci wàllu mine bi ci mine bi ci euh, Sénégal 2050 Sénégal merci beaucoup voilà référence bi ñu teg ko toog waxtaan. kii et d'ailleurs ci xibaar yi ma mujjee jot apparemment Amadou Ba nangu na débat public boobu. man na gisuma mu wax de kii dafa bind ci page Facebook. waaw. mais moom Alioune Tine moo ne moo ne exactement. il est prêt il est prêt léegi lu muy yóbbante nag. léegi nag na ko na ko wax publiquement ne ko Ousmane Sonko nangu naa publiquement débattre ak yow. waaw léegi comme ni mu ko waxee woon démb waaye. et puis ñu ah, gaaw nag. ñu gaaw sóobu ci yow yow ah, c'est important. Euh, kii tonton Amadou Ba xam nga tonton Amadou Ba ndeysaan man dama ko wax naa dama ko nawoon xam lu tax. Hmm. moom daawul kii waaye moom daal xam naa mënoon na ma jël moo koy defal kii. lan di ko ah. ah yow gis nga daal Amadou Bay démb daal yi mu sol rek débat la cam génne ma daal Amadou mais mais nag Amadou Ba moom il est il est très soigné eh, eh, il est très ah, correct mais mais gis nga gis nga booy dem genre pas guerre comme dans le vrai sens. mais gis nga combat dafa am noo ciy demee waaye doo ñëw def kii. chaise def genre tubaab yooyu. dafa bàyyeeku. coom génne ma daal Amadou Bay <laughs> daal yi bu ko sonk di xool su Amadou Ba di ko gagné ci combat bi. mais est-ce que du pari risqué loolu dinaa ñëw après ça. déedéet du pari risqué loolu ko yow yow yaa ngi yaa ngi fàttaliku. Euh, kañ la man de sànq. ba léegi débat bi laa waaw bu bu nar a neex. Euh, tu teew kañ en 2016. waay. 2016 fàtte nga bi bi Ousmane Sonko lan la daal la. déedéet. <laughs> yëpp yëpp yàlla ah. daal Amadou Mbaye rek gaye na Sonko kay toog gisat. Ah. xam naa 47 lay sol moom surtout waaw ah, la waaw mais mais mais daal lii c'est dafa rafet de. moo ñuul nii daal lii c'est. mag rek ca tam moog sama rakk daal yi moog sama rakk ñoo tolloo tànk mais daal di daal di rafet la. waaw daal di daal di c'est bien soigné bien mhm. ciré. la lii. lan la forme non daal di en personne mais du fa mu daal di